ba ñu dëkkee di wax ba tey ci li wàllum luubal nasaxal ak li nga xam ne mooy réeral xeli jàmbur yi ngir mën a jël a seeni alal mu mel ni que ba tey am na ñoo xam ni ñu ba tax na ñu ngi leen di continuer di wéy di leen dóor bu ñu dégloo li nga xam ne mooy libération mu ñuy xamal ki nga xam ne mooy kunkante kunkante ak ndootu ko laajte ci biir réew mi a nekk koo xam ni rek dafay woowee boppam sëriñ nekk ci réew mi naroon fee xar géej gi bu yàggul dara ñu gis ko nag ci sortie yu bari mu am ci lu yoo xam wax na ko fi def na ko wante kunkante pipayon ci benen ni mbir dafa daal di ànd ak ak ki nga xam ni mooy ibrahima ñas ñu gën ko xam ci sant yàlla gannaaw sant yàlla am na ibrahima jàmme mi nga xam itim bokk na ca wàllum boobu ñoom nag jamono ji lañ leen di toppee mooy wàllum escroquerie boo xam dañ ko daal def jëmale ko ci benn waay soo xam ne rek dafa nekk foofu ca diwaanu états joxe woon a sept million moom ngir rek ñu mën ko tabaxal wàllum kër ñoom ñu ne 7 millions yi dañ koy daal di def cent million wante waaja moom xamu ci woon dara ndax alal ja daf ko jaaraloon ci loxo Ibrahima Diame moom Ibrahima Diame nag lonkoo ceeg ñoom kunkante xaalis ba ñu daal di koy nasaxal fi mu nekk nii daal di naan euh, li nga xam ni mooy alal gën a ko guux fi mu toll nii di ko gëmlooyi yenn sangi garab yu bëri ngir alal ja mën a yokku ba tax na ki nga xam ne nag mooy émigré ba fare foofu ci wàllum États-Unis moom it daal dina leen di porter plainte fi ñu toll nii Kounkandé Ibrahima Diame Ibrahima euh, Niass ñu gën ko xam ci sant yàlla yoon daal di nay dal seen kaw karawaas ba dal leen jamono ji ña nga cay loxol buur tey ci mardi bi danañ leen a déglu ngir xool fu wàllant di mujjee ki gëtam ñuy wax ne sénégalais yi nañu maytu bu baax a baax ñi nga xam ni ay charlatan lañ dañuy wote sëriñ sëriñ lu di la gëmloo ni boo ma joxee lii mun nga am lu ci ëpp ak it di la lëndëmal sa xel dinaan mun nañ def li tooge dem ba tooge à place suñu borom fi mu toll nii jamono jii dañuy daal di déglu ñi nga xam ne rek mooy buur ñu xool ñooñu seen ëllëg fan lay daal di mujj mbégte la ñuy am saa su nekk di ànd ak yéen ci 221 Dakar.